ñaar fukki fan ak juróom ñeent ak fanweeri fan ci weeru sattumbar ak ba benn fan ci weeru octobre 2022 association booloo liggéey piir moo jël ñetti bés yooyu ngir sàmm ak ñoŋal wérgu yaramu askanu piir ak li ko wër alxames ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci quartier si dinañ fa amal ndaje bu rëy ngir yeete ak weccee xalaat ci wérgu yaramu askan wi muy tàmbalee ci juróom ñeenti waxtu ci guddi aljuma fanweeri fan ci weeru septembar ak gaaw benn fan ci weeri octobre 2022 ñaari bés ngir faj ak saytu wérgu yaramu askan wi xarafal yenn gone yi aljuma 30 septembre professeur Cheikh Tidiane Cissé di gynécologue dina fa amal waxtaan bu am solo ci lépp lu ajo ci wérgu yaramu yaay ak doom ak wàllu njur muy tàmbale ci juróomi waxtu ci ngoon ci parrainage yu ndem si yàlla son excellence Serigne Moustapha Cissé askanu Pire ak li ko wër bés yooyu yéen a ko moom.